jàmm li ci li njëkk ci liy maye jàmm di joxe jàmm mooy yow ci sa bopp nga xam njëriñal jàmm xam lan mooy jàmm wallahi bëri waa na kuy woote fitna ay ngëneelal jàmm ak njëriñal jàmm la xamul ndax doomu aadama ñaare dafa àttanul fitna àttanul natt dañu wax ne doomu aadama mën na dékku lu bari mais ñàkk jàmm moom mënu ci dara ñàkk jàmm doomu aadama mënu ci dékku dara damay wax ni misaal yi ñuy dal waxtu bu ne dañ koy xam parce que yu ndaw la ci yi nga xam ne ay safaanu jàmm lañ yoo xam ne mi ngi am ci àdduna am na koo xam ne ñàkk jàmm mën na koo jural lu ne kon ma ne li ci njëkk mooy nga xam ngëneelal jàmm xam lan mooy jàmm ñaareel bi mooy nga yéene jàmm sa bopp ak li la wër loolu nag wax bu sot la léeg-léeg nit ki nga ne ko da war a yéene jàmm sa mbokki jullit wallahi muy xëy di gontu di def safaanu mi ngi def safaanu loolu lan mooy safaanu loolu mooy yow bépp fitna booy woote wala ay bu uteeg jàmm rek xamal ne jàmm jiñ la santoon pour nga woote ko des na benn saab moo mas a ñëw ci yonent bi sallallahu ne ko dama lay laaj ayul islaami xayru ban islam moo gën ban islam moo gën mu ne ko bi ci njëkk mooy tut imu taama da lele ñam del joxe lekk kon ngeen gisaat ñaareelu yoon ci wàllu joxe ñam wala joxe lekk gis nga de mu ne ko tuuti amul taama da joxe ñam waaye bi ci ëpp solo mooy wa taqra'u salaama ala man arafta wa taarif deel jox jàmm koo xam koo xamul kana xamoo am na ci nit ñi koo xam ne bu la xamul pare na lépp ci yow néew bi gën a néew du la ko def parce lu tax xamut la waaye dafa xamul ne léeg-léeg da ngay ut aw ay ci foo xam ni yow xamoo ko lu tax mooy bis bu safaan ñëwoon dana métti lool ci yow kon ma ne bu mooy deuxième position bi waaye troisième position bi mooy lan mooy woote jàmm xam nga nit ki mën naa xam jàmm mën naa dox jàmm waaye lenn jafe ko lool mooy woote jàmm moo tax buur bi tabaraka wa taala di ñu doon wax ci alquran ne wallahu yad'u ila daari salaam yàlla bañ na ko ba waxtu bu ne danay wax jullit ñi ne leen dama leen woo ci jàmm di leen woo ci kërug jàmm lan mooy loolu mooy nit ki war tey da gis nit koo xam ne dafay nekk ci barab wala mu nekk ci famille wala mu nekk ci benn domaine boo xam ne yëngu-yëngu daf caa am moom bu duggee ci biir yëngu-yëngu ba li mu njëkk a ci boppam mooy nan lay def ci yëngu-yëngu bi bu dee daf koo concerne nan lay def moom ba gis ci boppam yow xamoo ne woote jàmm bi nga waroon a def donte li ngay wax wala li ngay def daf lay laal yow fexeel ba woote jàmm pour yëngu-yëngu bi xew mën a dal moo tax ñu ne woote jàmm mi ngi njëkkee ci li ngay dugg di ca wax wala nga cay def même bu fekkee ne doo ci gañe doo ci am njëriñ nga xam ne man dama koy def pour woote jàmm beneen bi mooy yonent yi yàlla yi fuñ tolloon ci jàmm yonent yi yàlla yi fuñ tolloon ci jàmm foofu nag ci ngay gisee islam bi mu ñëwee indi ci jàmm ak ñi nga xam ne ñi ngi koy tuumal lu dul jàmm damay wax ni alquran yonent yi ëpp yépp yàlla woote na ci ñoom jàmm ba noppi ñu sàkku ci yàlla jàmm pour ñaan yàlla wax ko ci ñoom moo tax wa salaamun yi ngay dégg yépp loolu la salaamun ala nuhi salaamun ala musa yi ngay gis ci alquran yi ci ëpp yëpp yàlla mooy wane ne jàmm am na solo ba yonent yi ci boppam ñoom ñëpp jàmm jooju dañ ko doon ñaan yàlla yàlla di leen ko jox waaye bi ci raw nag mooy woote biñ ko daan woote ci seeni yonent yonent bi salaa salaam bi ko yàlla yónnee ba mu toog benn jamono muy ban jamono bi mu demee ba islam commencé am doole mu gis ne léegi nag lenn rek moo ko dese mooy bind buur yi leetar pour ñoom ñu dugg ci islam gis nga mbooleem leetar bu mu bind buur adresse bi ak mujjantal gi lii la wasalaamu ala man ittabaal huda jàmm ñeel na ko topp njub lan la lay wax aslim taslam jébbalul mucc yàlla def na nag mbooleem ñim doon woo ci loolu ñëpp ñi ci ëppoon uyu nañu li ñuy jàng ci siira mooy ñaar wala ñett rek ñoo ko uyuwul lan moo tax mooy ñoo xëy na dañoo xamutoon dimension jàmm fi mu toll moo tax ñu ne yonent yëpp li ëppoon ci ñoom dañ doon woote jàmm waaye méthode woote jàmm it lañ doon dox mbokk yi jàmm beneen partie bi ci wàllu jàmm mooy jëflante pour jàmm sax jëflante pour jàmm sax jëflante pour jàmm sax dañu wax ne bi ci njëkk mooy nit ki nga xam ne moom mooy dox ci jàmm mu xam ne mboolem jëflante bu mën a doon ci àdduna bu ko jàmm lalee mën naa sax mais bu ko jàmm lalul du sax waaye bu àndee jàmm dana sax waaye bu jàmm amul dootul sax ma ne loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jëflante ci yow mi oote jàmm nga am jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa ñu doon wax nañu kenn ci yéen du dugg aljana lu dul mu gëm yàlla la lam tadxulul jannata hatta tuminu du ngeen dugg aljana lu dul ngeen gëm yàlla mu mel ni kon sababu dugg aljana mooy gëm yàlla waaye nag ñu bëri dañu jàpp ni gëm yàlla dafa jafe wala yombut ñu laaj ko nan lañuy def pour mën a gëm yàlla mu ne walan tuminu hatta tahaabu du ngeen mën a gëm yàlla lu dul ngeen bëggante kon gis nga nekk jëflante diggante ay nit faw ñu xool lan mooy indi jàmm pour ñu mën a dem damay wax ne diggante jëkkër ak jabar sax war nañoo xam ne jàmm bu amul ci seenu jëflante est-ce que sëy ba dana am diggante baay doom bu jàmm amul fan la ñu mujj tasaaroo rek yonent bi sallallahu alayhi nag ne du ngeen gëm yàlla ndari ngeen bëggante bëggante nag mbir la moo xam ne moom bokk na ci secret yi gën a rëy ci wàllu ci yàlla da ngay gis doomu aadama mu mel ni dalaa bañ xamoo ba lan mooy sabab nga gis doomu aadama bëgg la te yàlla tax nga xam ne kon bëgg leneen la loo xam ne duwul ne rek nit ki da ngay bëgg bëgg te yàlla tax wala nga bañ déedéet am na sabab yonent bi salaa salaam nag ñu ñaawante wallahi ay yi tàkk ci àdduna yëpp boo xoolee te ñàkk jàmm judd ca ba mujj gi leneen ak leneen judd ci li koy waral mooy sababu njëlbeen bi mooy jàmm ji nga xam ne waroon nañ ko contrôler te am koo xam ne fu mu toll suba ngoon guddeeg bëccëg mi ngi dox ci lu dul jàmm te xamul fan nañu jaar ak moom pour jàmm am ma ne kon li ci njëkk mooy bu ngeen ko dénoncé sottiwut yéen ñëpp na ngeen def benn dànk pour xeex loolu mu jógee li nga nekk noonu la damay wax ne ñàkk jàmm danay am ci dëkk wala danay am ci gox sabab bi mi ngi juddoo ci lu ndaw loo xam ne waa dëkk ba xam nañ ko waa gox bi xam nañ ko mais ñu ba koy dimbale mu ne rek ñu tooñ dimbale ko yomb la sax juddee dawaay ndax doomu aadama lépp lu mu mën a def isaar isaar mooy lan mooy mooy bépp doomu aadama ka ngay jëflante nga jàpp ne bu lor amee man maa war a lor nga jàpp ne bu lor dana am am nga ne xaaral man ma gaañu xaaral man ma lor ngir waa jëriñu yonent bi sallallahu alayhi wa doon nañu wax ne ñu moom yonent bi bokk na ci li war seen diggante bu feebaree nga seeti ko bokk na ci li war seen diggante doole mu ne dimbale ku ñuy néewal doole nag foofa la fitna di juddoo foofa la bu fekkee ne am nga ko wala man nga ko def ko rek amul benn problème bu yàgg benn ko ñëpp ko fa ñaar jàmmarloo wala ñu jël alal nit wala portable am nga taxaw di ko xool mu ne parce que li ngay ragal mooy boo ci duggee des ca wala nit ñi dañ la mais ana kon dimbale aji néew doole ana dimbale koo xam ne yow nag yaa ko mën. bisimilah. du añaan du soxor du bon du yéene moromam lu dul jàpp cërëm bi tamit du jug jëm ci moromam di ko def lu dul jàpp. kon kon euh, waxtaan wi yëgal bi euh, sant nañ ci yàlla bu baax te euh, waxtaan wi am na solo xanaa. tànn bu gàtt bi rek lañ ciy jooy waaye yëgal ne mën naa ne liñ ko doon wax yëpp wala li nekkoon ci xol yi wala liñ doon xalaat yëpp andi la nga misi bu bëgg nag jotaay bi mbooloo mi day suru jëwriñ la te ci lii rek lañ ko xam ci jàng ak jàngale jàngale ak sallallahu alayhi wa sallam eh, moom mooy moom mooy aw toolam ci lay xëy ci lay gont mi ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi fu ne aw turam yegg na fu nekk ci jàngale yu salaay salaam moo ne nit mi ngi siiw ci lu ne waaye ñi ko ñi ci sopp lam sopp rek ñoo koy soutenir ñoo koy bàyyi xel eh, ñi nga xam ne nag yonent bi salaay salaam yi sopp ak al sopp alquran bëgg naa ñu fekk ko fii teral ko te yàlla tax bu bëgguma nag kenn toog dama bëgg ñu fekk ko fi kenn ku ne lan nekk sa poos nga génne ko jox ko ci sëriñ si nag laay dalee ñi nga xam ne bu ko defee ñi ci des doog a ñëwee. ak sa waxal boppam. te mën nay wax de ki mën a wax nag bu la séddee waxam da nga jaxal moo tax jax na leen moo tax mu ne jaboot gi yëpp ci jiitalal sëñ seex naa mun sa borom dëkk nee na bëgg na lool ki ñuy wax sëñ bu siise itam bàyyi ko Dakar mu ne dë borom dëkk nee na na si sa teewaay lool bokki dëkkandoor yi bokki taaliba bu ñu waxee loolu làmb lu ñëpp sëñ borom dëkk nee na bég na ci teewaay bi mu ngi am mbégte lool di leen ñaanal yàlla fan bu gudd di leen ñaanal yàlla wér di leen ñaanal yàlla kaaraange te yeneen bi mu ne man laa yaskuru qalila laa yaskuru katira ku dul sant lu tuuti walaay doo sant lu bëri te tey temps dafa seet ku yëkkati taaxam jox la ak lu mu la ko mën a joxee wax dëgg yàlla bu bis amee war nga ko mën a xam te yeneen bi mu ne ak taxadugu bi bi nismati laay suprun wa tax ko ko te sant googu alquran wax na ni la in zakartum la azidannakum waaye wa in kafartum inna azabi lasadid su ngeen wéetee téwal yi xam ko ba pare waxu leen ko ngeen wétti ko ni li bu mbugal am ne waaye kon ñu ngi am mbégte doon li ñi borom dëkk sax seexoon rëy na am na ñeneen ñum ñoo xam ne ñi xeen dëngoon na ko ci waaye ñooñu acté ñu wax ko ñu dégg ñoom it am na solo lool muy waa kër sëñ Aliou Ndiaye ñi nga xam ne sëñ Aliou Ndiaye def na fii ci dëkk bi loo xamante ni xeen tey bëri na lool ñu jëlee bis bi dara jaaree ko doomam muy Cheikh Mouhamadou Mansour kon buñ ko defee loolu ware na moom ci dëkk bi la dëkk ci dëkk bi la bokk lépp lu ñuy def ci dëkk bi moom dana ko yëg lépp lu ñuy def ci dëkk bi loxoom dana ko lépp lu ñuy def ci dëkk bi dana ci ñaan ñaanam dana ci dugg kon bu bis bi amee ñu bu ñëwee bu ñëw bu teewee bu teew danañ ko fexe ni mbokk taalibe yi dégg ko lii moo waraloon tàggu yi li ñu borom dëkk nag su sasoon ëpp la li waaye suñu làmmiñ moo lott ci tudd ko ñu xam ne luñ tudd lu nekk xol bi tudd na ko wasalaamualeykum waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi nu jiitalee sant sunu borom subhanahu wa taala moom mi nu xéewale jataay bii mu mayoon nu nu fekke ko daaw te ren mu mayaat nu nu fekke ko te diggante daaw ak ren lu bari xew am ñu fekke woon daaw ren fekke wunu ko am ñun bi nu ko fekkee yit talunu nun su may nu xéewalug fekke may nu xéewalug tal ku mu doon ci nun waxtu wu dugg bay jeex soo ko laajee noy yi mu ciy noy dana ci nopp du ko xam te noyyi bu nekk moo ne ci xéewali suñu borom yi la bokk wa in taxudu ni'matallahi la tuxsuha noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala ñi ko fekke woon daaw te ren yàlla dogal nu jiitu ci këru dëgg ga sunu borom dafa leen i dafa leen yërmande noo ngi ñaan ñi ko fekke woon daaw te ren yàlla dogal fekke wunu ko jiitu wunu waaye ñi ngi ci ay tawat wala ay yittey adduna bu dee jàngoro la su borom saafara ko bu dee ay yitte la su borom lijjanti ko ci barke bis bu tedd bii ak weer bu tedd bii nu nekk waaye nu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu may ci mbaaxam ak tawfiixam ndax loola moom rekk nag moo ko man bu déwénee mu mayaat na nu fekke ko fekke bu ànd ak man ak tar noo ngi julli ci sayyidul awwalin wal axirin sayyidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam moom mi nga xam ne sunu boroom subhanahu wa taala lëkkale dafa lëkkale léppam ak lépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam li muy wax ñi ko gëm sax aminu billahi wa rasulihi la ci teg li muy wax ñi ko weddi innahum kafaru billahi wa rasulihi la ci teg ba muy ba muy wax ñi ko topp it wa man yuti illaha wa rasulahu ba muy wax ñi ko mooy it wa man yaasi illaha wa rasulahu ba léegi sax day am damir joo xam ne sax bu ñëwee doo xam yàlla ak yonent bi lu mel ne wallahu wa rasulu ahaqu an yurduhu doo xam damir ci yàlla la jëm wala ci yonent bi mu wax jaam ñi ne leen إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقد فاتبعوا سبيلي وقد فاتبعوا سنتي نون كده سيس ريبيتي يعني فاتبعوني رك لا من يطع الله ورسوله واي واحد نه نعم. من يطع الرسول فقد اطاع الله بابي ني جاينتك موم dafa wax ne inna alladina yubaayixoonaka innama yubaayixoona allaha waxul ka annama innama la wax sësale ci yont bi bu ñuy daan def bayaa di jaayante day jël loxoom di teg ci kaw seen loxo suñu borom ne ko sa loxo bi ngay teg ci seen kaw loxo du sa loxo sama loxo yadullahi fawqa aydiihim noo ngi julli ci yonante boobu alayhi salaatu wasalaam sant bu baax Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moom mi nga xam ne yonent bi la defoon muy léppam dafa am ku ko masa indil guro sëriñ bi ne ko noo ci jublu mu ne ko damaa dégg ne sa bëgg la da ngaa bëgg guro sëriñ bi ne ko jëlal guro gi nga yóbbu ne nañ wër dëkk bi lu fi guro wala nañ wër kër lu fi guro nañ ko génn man kenn du ma askan di ci bëgg kenn ku dul rasulullahi sallallahu mu wax ne moom yonent bi jox na léppam yonent bi alayhi salatu wasalaam min xamri mahabbatil jalil la wax nee na dafa màndi ci sàngara bëgg yàlla ak bëgg wa wa xibbi xalilihi rasulikal xadim ak bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ne xarixtu fii bahri mahabati rasul nee na dafa lap ci géejug sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo ko tuddee mu daal ree giñ naa ne daawunu sorone jikkoom yi waar na xam kon na ci xeyrul leen bi yaa jikko yu raw yooyu lawliyaa moo raw xiyaarul asfiyaa dendam amul ci xam nattoom yu rëy yem daan tegoo te tiiwu koo ànd ak sago te ami mbóot yu muy fegu te du ko def ci xam duniyaa da ko wanoon gannaaw mës la faale yamu laa jubli ci yàlla li ñanaaw wakkil lu dëddu xamul bëggul galen bëggul médaille bëggul lu ab tubaab di jaayante naag yàlla sa waay gañe na moo xam bi te duwaa ak bëgg lépp yonent bi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam la wax nee na yonent bi la jox léppam léppam Touba di seetul dara kon noo ngi santaat sëñ Touba bu baax di ñaanal sëñ Moustapha suñu borom yàggal ko te wéral ko waaye di ko ñaanal kilifay diine lislaam yépp di ko ñaanal itam mboolem yépp di ko ñaanal itam kilifa yi dëkk bii nga xam ne fi ak nu di pakara ci bis bu tedd bii nga xam ne ni ko sëñ Babou waxee léegi ak ni ko sëñ bu waxee léegi ak sëriñ Bachirou sëñ Bachirou Dramé ni ñu ko waxee léegi rek muy ndigal li ko lal ndax bis ni ki tey jii lañu doon ta lañ doon tabaski mën na loo wax ne bis bi su doon ci ngénte moom li ñuy nga xam ne ay bés la dañuy wax ne tey ngénte tabaski la tey tabaski la ñuy ngéntee la ñuy wax muy loo xam ne lu rëy rëy lañ njëkk a tiire mooy ab jaam ndeke lu mu bëgg rek na ko ñaan borom yàlla lu ne mën na ko may ab jaam ndax Seydina Ismaïl mi sabab tabaski ak Seydina Ibrahim bi muy laata am Ismaïl naagu woon na ci am doom ndax at yi ñu xamoon ci nit ki am doom weesu na waaye mu di ko ñaan rek suñu borom wane ne ab jaam lu mu bëgg rek bu ma koy ñaan mën naa koo may rabbi hab lii min as-saalihiin la doon wax lan la ko mujj jural fa basharnaahu bi ghulaamin aliim moo tax Sëñ wax ne man bi ma doxee ba àgg ca ba àgg ci sama borom àgg yi fa nit yàlla yi daan àgg ma àgg damaa xam ne yàlla lu ne mën na koo may nee na nag ma laaj fa loo xam ne kenn mosu koo laaj ñu ne ko loolu lan la mu ne ko mas a àgg ci yàlla ba ñu wan la magasinam ba da ngay wax la nga bëgg ñu moom ngay laaj ñu jox la ñu ne ko yow nag bi nga àggee mu ne man nag bi ma àggee malaaka ma fa nekk bam ma waxee lan mooy sa yitte ci magasin bi dama ne ko man caabi ji laa soxla ko man caabi ji laa soxla mais mu ne maa ah, loolu nag dama koy laaj sama borom ndax dañ maa waxoon biir magasin waaye waxuñ ma woon caabi ji sëñ bi moom sëñ Mor nee na suñu borom da ne malaaka mi foofu damaa waxoon ne ku fi ñëw bul ko delloo bul bul ko delloo loxoy neen lu mu fa laaj na nga ko laa wax mu ne ko kii caabi ji lay laaj moom mu ne ko jox ko ko nee na jot gëm jot ci caabi ji moo tax mu ne xasa inu rabbi futtixat li wa safsa caabi man nga fii ni koomi suñu borom yi suñu borom teg na ko ci sama nee na jot googu mu jot magasin bi nag jot caabi magasin bi moo tax mu fekk fa loo xam ne xel mësu koo xalaat kenn mës fa xalaat ne man ca magasin moom rek ko am kooka mooy Cheikh Ibrahima Fall Badoul Mouridine nit yàlla yëpp bëggoon nañ ko ndax ku am doo bëggoo gërëm Baye Fall nga koy wooye ku am koo bëgg gërëm it da nga naan ñooy Baye Fall kenn waaye Baye Fall nag suñu Bàmba ko ma xasaa inu rabbi fottiaat li wasasaa nee na ñu ne ko waaw nan ngay def ba mucc ci lor yi ndax magasin bi moom ku jot caabi yi na fa xéewalee ne la fa lor yi ne lu ne dafay ne mu ne di xayril afa su lor dana jàkk lor ni ko wutil tamit ñu ne ko loolu mandat boobu moom ndax day nekk ni ñu koy waxee ci suñu jamono bii mandat cinq ans lay doon wala bu sept ans lu mu war a diire mu ne ah dunya wa ukhra wa barzakh adduna ak àllaaxira barzakh fasaa'inu rabbi fukki at yi wa sa'sa'a kon da ngay gis ne yàlla lu nekk mën na ko may ab jàmm ndax maam suñu Ibrahim naagu woon na ci am dox waaye gis nga bi mu ko ñaanee boromam suñu borom da ko koo may. sayyidatuna Faamata naagu woon na ci am doom ndax bañ ko cay du bañ ko cay bégal ci am doom lan la wax dane yaa waylata aadimu wa ana ajuzun wa hada baali sayqan inna hada la zayun ajib ah lii doy na waar man dama jirmet yaa waylata aadimu wa ana ajuzun wa hada baali sayqan te sama borom kër màggat na ba man jërmel naa inna hada la sayun ajib lan la ko malaaka yi wax dañ ko yàlla kenn du ci naaku ataajibina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu aleykum wa ahlal bayt innahu hamidun majid solee dàllu baayam mu jëf baayam doon def mu mën koo wut kooku war na fee jàngale na fi ne nag yàlla moo leen war a gënal lépp ko digal mu rey waaye xoole bi mu jotee ndigalul boromam mu bàyyi xel njaboot waaleykum salaam wa rahmatullah tooñe allahu minal saabiri am na ko waxoon ne sa tajidu ne incha allahu saabira daa beru moom nangu wuta dem ca ma ne man danaa muñ muñ soxna yi ak siyaar yëpp di ko jaarale ci moom di jottali nuyoo sama doomi sëriñ yi ma ànd ak samay sëriñ muy njabootu sëriñ Mor njabootu sëriñ Bachiru muy ak Serigne Malick ñi nga xam ne ñoo toog nii waaye di nuyu it di jot li nuyoo it mbokki daara yi nga xam ne ñoom laa àndal sëñ Pape Diop Serigne Bachirou Darame ñi nga xam ne maag ñoom ñoo ànd ñoom itam nuyu sunuy rak waaye bis bi it ñu ànd ak ndigal li ak sëñ Babou mi nga xam ne moom lañ fi fekk nuyu bu baax. délégation yi nga xam ne ñooy door ak si kilifa yi door ak si léegi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara muy ñi nga xam ne ñoom la ñu parrainé bis bi ndax bis bi bisub lislaam la waaye bisub jullit ñépp la ndax bis bi njabootu Seydil Hadji Malick njabootu ak Cheikh Ibrahim Niass ak mboolem tariqatu suuf yi yépp ñoo seq bis bi ñoo seq jataay sëñ Mor ku nekk xam na nit di xam na digganteem ak sëñ sëriñ Abdoul Aziz Sy ñu meloon moom sëñ Mor Mbaye Sy ak jaxasoo ak moom ku ne déglu na ci waxtaan yi sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum muy cité sëñ Mor ci ay waxtaanam di tudd relation yi daw dem ci seen mukk te jaaru ci moom kon kër sëñ Mor képp koo xam ne yaa nga fay yëkkati dara jullit ñëpp nga ko yëkkatee lislaam yëpp nga ko yëkkati moom sëñ Mor ci boppam da wax ne moom tiijaan la ne laaj leen ma nag lu tax ma ne tiijaan la buñ ko ko masaana laaj mu ne leen Seyid Cheikh Ahmad Tiijaan yi moo tax ma nekk tiijaan ndax dama koo bëgg ndax xam naa ni ci wali yu yi la te wali yu boo ci weddee benn weddi nga wali yu yëpp nit yi yonante yi alxuraan fi mu ne bu ne kataba qawmu luutin mursalin lay wax te nit loolu rek lañ weddi de waaye dana weddi na yonent yëpp kataba qawmu aadin mooy boo ci weddee benn rek suñ bi nee na fa kullu waliyin suuta zabbusin abad bi zeyli man arsalahul ilawul aad wali woo gis nag mi ngi téye ci mbicci ab yonent moo tax wali yi boo ci weddee benn naan da a yëkkati ba ca des ba ca des nuy njëkk a moo tax suñu woon bu ma saana wax ne tiijaan laa danaa laaj leen ma lu tax ma nekk tiijaan ñu ne ko bëggoon nañ koo xam mu ne Seydi Cheikh Ahmad Tidiane tax daan ne xaadir laa laaj leen ma lu tax ma nekk xaadir ñu ne ko bëggoon nañ koo xam mu ne Cheikh Abdou Xaadir jiilee tax kon loolu sax booy jàng Masaalikul Jinaan da nga dégg sëriñ bi wax ne fa kullu wali fa fa euh, fa bi muy wax ci wird yi fa kullu muridin fa kullu wirdin fa kullu wirdin yuridu lmurida li hadratillahi walan yaida sawaun intama ila jilani aw intama li ahmada tijani aw li siwahuma min al aqtabi is hum is kulluhum qad anala sawadi is kulluhum qad anala sawadi fa kulluhum yad'u lmuridina ila taahati rabbil arsh aysuma jala kon barab bi barabu tarixa yépp la te loolu it feeñ na ci keroog bi Cheikh Ibrahima Ñas bi dellu ci borom keroog dafa fekk sëñ Moor sëñ Bàcc Jigéen mi ko nekk li ak man ñi fi newoon dafa fekk sëñ Moor Mbacke teppi benn paquetu këyit wala tamu dan na wa in yi ñaan yi mu daan bindu muy jox ku ne par fukki këyit ne rang ñu def rang ku ñëw muy wàññi ko ci kayit joxal ba mu yàgg paquet bi mu xëcc rek fekk ci wenn kayit wu xonq mu ne mu xool kayit mu wutee ak kayit bi ci def dafa rouge mu ne fekk ne kayit bi de daa am lu muy yëg daal di koy xool daal ne ah cheikhul islam cheikh Ibrahima Niass moo fi bàyyi ko moom la ma ruugi di tànn daal di waaye ndabam yépp fees na digganteem ak borom loolu mooy faydu bi yonent bi saa sallam daa waxoon sëy naa am yu ne ko li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan xayrun laka minhum rijaan kenn nit koo fexe ba mu jub moo gën adduna yi ci biir Cheikh Ramañas nag ba duggoon Nigéria léegi wala nga dugg Mauritanie gii wala nga dem ci àll bi ñaata ñaata nit ñoo jubee jub jëndi ko ci lislaam jaare ko ci Cheikh Ibrahima Ñas nga xam ne bëggam yonent bi saa sallam ak foñ ci àgg weeru mawlid sax nee na weeram na moo ko moom moom ñoom dañoo xër ci yonent bi ci nañu rawee hanii'an li Ibrahima laaha xidaaduhu xidaadun bada linnaasirina jamaaluhu kooku dafa dafa feesoo del ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax soo masaana dugg ci saalu sëñ Mor ba tey boo fa demee dañ fay fekk photo Cheikh Ibrahima Niass yu ma photo yi nee na gis photoom rek eh, mbégte lay annoncé ci xar kanam yi naka noonu it noonu la meloon itam ci digganteem ak tarixa yi waaye mbokk yi mu mel ni ñoom nag am nañ seen bàkk bi nga xam ne bu ñuy dugg rek faw nga dégg ñu bàkk ko muy laa ilaha illallah kon mbokk yi ñu may leen ñu toog buñ doppee sëriñ ñam taal mi nga xam ne mooy ancien maire nekkoon fi gisuñu xarit gisuñu lépp mu ngi di bawah boobu dana ko dugal def nam daan def dana fi jël kàddu jox mu see ñeen taal insha allah rek di kon ñu. Eh, waajur ndax ngay taali beeb bi lépp bët bi seen bëtt da ngeen ci doxal ba sonni sedd nag bant lu gën ci bindee fen ñeeto ya bakana yi dañoo guddal dinañ wax tuuti rek ngir contentement ñoo ngi santaat suñu borom سامات من سر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ñu dëkk ci loxoom imaam borom dëkk moom na nañu ko joxal waa dëkk bi yëpp bu ko defee dëkk bi képp kuy tudd nga xam ne. Euh, fii ñuy seetaan ci Sokone TV tey jii nii nag ñu ñëwaloon leen fii nga xam ne moom moo nekk.